berakhir yang menyiar dan menyutang berhenti bismillahirrahmanirrahim jika tanam aku paham mau suku borong minyak kamu menyutup kasi alhamdulillahirrahmanirrahim jimbaha akar tanam mau suku borong aku hormam kon kon ketani dapat dapat khawati ikuti kumase dan ini defnya tidak ditambah sekarang bukan defnya ini para yang tidak dugu ci program bi comme niñ demee lu kon kenn ku ne mu muslu seytaane ñu fatihah, ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salaatul fatiha aaja bu waay am rek mu dugal ko ci biir suñu borom dina ko faj insha allah ndax seydina alimaam moo ko waxal boppam ni ñetti fatiha ñetti ixlaas ñetti salatul fatiha man fajul loolu xaw ma

أجب دعانا بجاه المصطفى وجل كل سنة أجب دعانا بجاه المصطفى وجل كل سنة بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا عيسى دي Hakkı Eğren التي أرغمنا كم بذي ما رسولنا Oh, মন Bye. Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ya Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku jaar mu ñew ci tànt bi moo xam ngay góor moo xam ngay jigéen moo xam ngay mag moo xam ngay ndaw kilifa yeeg ñëpp monsieur le maire ma kenn daa lu ma bëgg ñeenti baat dama bëgg mbooloom yëpp waxal ma ko ca maa ngi ñaan képp ku ko wax yàlla na nga fekkee déwén maa ngi ñaan képp ku ko wax képp ku baatam gën a kawe ñoo ngi ñaan yàlla na suñu borom ba nga xam bo fi jógee xamni ni suñu borom yokku na la ma ngi ñaan bu dee jigéen te bëggu wuñu yalla na suñu borom may ko bu dee bëggu ko nak yalla xam yalla baax na ma ngi ñaan bu dee góor itam te bëgg ñaar ni man yalla na suñu borom may la ko waye ma ngi ñaan ku ni képp nekk si tànt bi monsieur le maire ne ñëpp wax alhamdulillahi rabbil alamin ñetti yoon ca kaw jërëjëf jëf yàlla na yàlla nangul sëñ bay ana lu tax ñu war a sant yàlla ndax loo xam ni at nga ko doon waaj sun borom ci màggam nga ci suturaam su tedd sa suturaal muy dem ba ay weer des muy dem su borom di la suturaal di la ñu dem ba ay fan des ngay dem sun borom di la suturaal di la ñu dem ba acci ci bis bi teewul sun borom ba sutural ba leen bëggoon ci kamil bi ñu jam ko ñu ñaan yàlla ñu ko yalla nangul te ci digënté bobu yépp ni ko kat bu mag ba daan waxee sayidina baay abdullahi diggante boobu yépp sun borom ba lu ne def nako suñ borom ba amna ñu fi jël ci digënté bi am dé digënté bi amna ñu fi jël digënté bi amna ñu fi toroxal digënté bi amna ñu fi teral digënté bi amna ñu fi tek natt yo xamni amana ba sax bu bëggoon ñu ñëw ci bis bi waaye natt yeeg nangam yi tax na talu noo ñu ci bis bi ñun nak suñ borom sutural nañu ba ñu ñëw ci bis bi ak jamm kon da melni yalla na ñu ko yalla jërëjëf am déet yàlla ne jërëjëf jëf merci thank you God dama koy mënoon nag si espagnol waaye kon ma wax ko waaye espagnol daa mel moo gën a yomb moom dangay jël baatu français bi rek daf si yokk s da nga naan jëyes merci es tey itam woykat ba nee su asgor mayee jaam itam nay gërëm kon yàlla na ñu wax yàlla jërëjëf si teraanga ju rëy jëm ñu defal ginnaaw loolu ñuy jël nuyoo yu tedd nuyoo yu sell ak ziar rëy jëmale ko ci xalifatul muslimin muy Seydina Mouhamadou Makhtar Laye ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Imaamu Laye Mahdi al Muntazar ñu ngi ñaan suñu borom ba na ko bàyyi libaas nag ñaane woon ca way wa ni guddi si yaa ko yen yaa rabbi sa yoon nen ba seere ko sa yan boo ma yan ñaan naa doole yi na may fate ñaan boobu rek dañ koy ñaanal di ko ñaanal ay rakkam di ko ñaanal ay doomam di ko ñaanal sët yeeg ñëpp yàlla na suñu ba kàttanal leen doole leen mën a leen nekki ziyaar yooyu dañuy jël si dem ba Touba fekk fa Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké di ko ziyaar di ko ñaanal kenn lu ñaanal alxalifa Mouhamadul Maxtaar moom itam ñu ngi ñaan yan bi ko yàlla yan yàlla na ko yàlla may doole yi na muy fabee ne noonu itam la ñuy ziare sunu sunu baay Ababacar Si Mansour moom it ñu ngi koy ziar bu baax di ko ñaan yàlla na suñu borom ba kattanal ko ginnaaw loolu ñu ngi ziar xulafaa yi nekk si dëkk bi yëpp xulafaa yi réew mi yëpp yàlla na suñu jàmmal leen dooli leen kattan dooli leen noteel si njaboot. ginnaaw loolu ñu ngi siyaar kilifa yi jotaay bi ci jiital Chérif Mame mbay di ko ñaanal yàlla moom itam yal na yàlla kattanal ko ci ziaram la ñuy profité ci ziaral ay magam yi nekk si kër gi yëpp te sëriñ Mamour jiite leen moom mu toogal si jotaay bi ñu ngi leen ziar yàlla na suñu leen jàmm ginnaaw loolu ñu ngi ziar monsieur le maire Momar Talla Gadiaga di ko ñaanal itam moom it yan di ko yàlla yan yàlla na suñu borom may ko doole na muy fari di nuyuwaale itam ñi mu àndal ñëpp di di ci gis sunu sunu bàyyi Seydina Issa ak premier adjoint monsieur Badou Gadiaga ñu ngi ñu ngi leen ziar bu baax di ziar délégué yëpp ñu ngi leen ziar bu baax. ginnaaw loolu ñu ngi ziar a yi nekk ci dëkk bi yëpp di ci jiital sunu wéyjuru al imam Baye Ngagne Demba Gadiaga ñu ngi ñaan moom itam suñu borom yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal lu màggat màggat yàlla na ko fi yàlla bàyyi ay nokkeem di njariñ ci ñoom ndax ku fonk bis bi la ku am fu ma teg bis bi la ndax bis bu jub see rek mooy njëkk jël teraangaam def ci bis bi ñoom ñu ngi ñaan yàlla na suñu borom kattanal ko moom it si nuyoo mu yóbbaale imam yi nekk si dëkk bi yépp ginnaaw loolu ñuy nuyu daayira yi moo xam daayira laayeen la asxaabu gax bi ñoo toog nii moo xam daayira murit la ku ci mel ni sandatu daare ñu leen di siyaar bu baax suñu yaayu tedd yi di siyaar dawaa irit tijaani daayira ku ci mel ni laxyaa ñoom it ñu leen siyaar ak daayira tiijaan yépp yu nekk si dëkk bi ginnaaw loolu ñu ngi nuyu borom mérite bu rëy bi alxaaji Mouhamadou Laye Diir ndax olof dane ku aye rek wal moom te ñoom ñoo aye nag ñu lay alaaj Mamadou Laay ñu lay siyaar baax di siyaar njaboot yëpp nag di siyaar yëpp di siyaar yow ak say jarbaat bi yëpp koy jégalu lay siyaar bu baax nga xam ni maa diw mënta dem bàyyi Isa Isa mënta dem bàyyi Bayti Maamour kon yow itam lay sa wax baax siyaar bi jot mbokk yi ginaaw lool comme ni ngeen ko gisse won ci affiche ba ñen ñi dégg ko ci publicité yi ana kon moo al alxaaji bolle lay dir wala wala bolle lay dir wa yàlla na yàlla yàlla def muy alaaji comme ni ngeen ko gisse ci affiche dañ dañu won suba gi bëccëg gi dañuy wàcce alquran defal ko ñaan mu jëm ci sunu yaay soxna yaa Khady Kébé Sall ak sunu papa Moussa Ndiaye ak mboolem nuyu islam bi yëpp ñoo ngi ñaan yal na yàlla nangu kaamil bi lépp luy leer yal na yàlla sotti ko ci seen i xabru ak néew islam bi yëpp lépp luy barke ak xéewal ak sutura yal na yàlla wàcc ko ci kër gi. mu baawaan ba ci koñ bi saawaan dëggal nga alu bayti baay laay ilaay muhammadu laay dëggal nga alu bayti baay laay ziyaara maa ngi ñaan képp ku nekk ci taal na képp ku nekk ci tànk bi ñëwal sax ñëwal sax

soxna Mame Penda masha Allah bii moom la ko yàlla boole loon kontaan nañ bu baax am Moussa Ndiaye lépp lu ñu mos a defal fàttewuñu ko yéen itam yàqoo leen ci dara saa bu bis bu jotee ngeen taxaw dugal ci sen loxo kontaan nañu bu baax di leen di remercier gërëmal ñu fami bi yëpp macha allah daayira fallu sen seen ñoo sen papa bàyyi maas macha allah seen juga jërë ngeen jëf macha allah ah ma Mame Penda sunu yaay kontaan nañu baye baba jërë ngeen jëf macha allah. suñu borom neena na ngeen di jokk le yi ndax ëlëk dama leen koy laaj kon doole yaangi yaa ko le kóllëre boobu ak famille bi ñepp ñu ngi lay ñaanal yaanga yaanga yaa taxawu yal na yàlla la barkeel barkeel sa baay barkeel njaboot gi yëpp kontaan nañu macha allah alhamdulilah yal nañu ko fekkee déwén. jërëjëf macha allah jërëjëf madame Diop jërëjëf macha allah kon. ñaar fukki at ak juróom keroog ba ma ñëwee dëkkaloo ma fii la mu doon bañ ci këram ma di ko bañ ci sama buntu kër. la ma nangu ci biir këram itam ma nangu ko ci sama biir kër moom ala def lay taw loolu bu lay def di fuural ak yooyu ma ko bañ a coow bu kër te itam dem nañu bu bu amoon kon leneen leneen lay demee ndax biskit dinañu ni dinañu ko def man di leen kenn ko def man di dawuma ca Moussa Ndiaye ni ko kaay dimbali moom moo dégg te dara la ci yaakaar lu dul yàlla ma Moussa bu mu fiiroo bàyyi ci barke fii naa li koñ bi nag koñ bu baax la koñ yi cëq koñ bi moo baaxal koñ bi kër góor gi nóoru nga wi ko fee góor gi Abdoul Ba Alaaji Moussa Ndiaye nekk fii ma nekkaat fii ak góor ku baaxoon ñu ma ko wax Matar Ba man ñii ñoo neexal koñ bi kenn xamu leen ci ay tappale ci caaxaan te ku mel noonu ku mu yàgg day jub kon waaye nag Moussa Ndiaye moom moom tey ñaan bi fii ñu ngi ñaan yàlla ci barke suñu sëñ Ablaye yàlla na nga jël sëñ ci biir àjjana yàlla na ko yàlla def jaay si dara kon ñu jox monsieur le maire bu noppé rek jox sëriñ bi sëriñ la ben jox amass man nak suma ñëwé bo leen ku ñu wara gërëm man ma lay gërëmal sama bopp inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dama amoon ngant boole ci ngol ba dem